xawaal yi nga xam ne bu dul woon ñoom liggéey bu ñuy def du du mot mukk di leen di gërëm di leen ndokkeel ci at bu bees bi di ñaan yàlla mu defal ñu ay ndam ñun ñëpp eh, ngeen di ndokkeel waa Thiès aussi ak waa mboolem waa senegal ci at bu bees bi. di wax nag ni ñun xaaruñu ba we bés yi kii pour tàmbaliwaat liggéey bi tey jii nii ñëw nañu Thiès ëllëg dinañ jëm feneen ak feneen am ngir. dem xool saytu liggéey bi ñuy def ci terrain bi càmbar ko ak équipe bu Sénélec yi xoor matadi yi fu mu nekk ngir mun leen saafara am na yu bëri ñu fi gis yoo xam ne naam xamoon nañ ko waaye dem ba ci population yi wax ak ñoom ñu yëg ni ñun lu ñuy dund ñun réere ko mbir te ñu ngi ci tànku saafara ko loolu dina may ñu gën a muñ donc fépp foo xam ne des na dinañ fa incha allah dem waaye tey jii luñ fi indi woon ay projet yokk réseau basse tension bi mooy lii nga xam ne moom mooy yóbbu courant bi ba ci kër ga yokkaale qualité réseau moyenne tension bi mooy xeetu poste comme poste bii ñu taxaw nii nga xam ne moom mooy wecci courant bi nga xam ne dafa xaw a fort defaat ko courant bu xaw a mm, mën a dugg ci kër yi muy basse tension bi loolu nag bu ñu xaymaa lépp luñ ci dugal ci koppar dina tollook milliard ak ñaari téeméeri million muy alal bu xaw a takku bu ñu xoolee aussi lu mel ni ñaari junni kër dinañ ci bénéficier maanaam ci yokk googu nga xam ne dañuy yokk courant bi ñu ci jotul woon wala ñu ci dul woon jot ci anam yu gën a sell di ko jot ci anam yooyu yooyu nga xam ne ñëpp moom la ñu soxla donc ñaari junni kër mu tolloog euh, juróom ñoo ñaari ñaari fukki junni vingt mille euh, nit doomu aadama dinañ ko yëkk waaw gannaaw loolu nag am nañ projet boo xam ne boo xam ne loolu yëpp da koy wéyal di xëy na comme ni ma ko waxee sànq ndékki la rek añ bi doog a ñëw añ bi mooy nañ ci def gafa xaalis bu gën a takku ngir ñeneen ñu jotagul woon gën a mën a jot ci courant parce que courant ñëpp a ko soxla. wàññi bi bu ci des mooy am nañu lu gën a ëpp loolu doole mooy lu tollook fukk ak quelques milliards nga xam ne post coona bi nga xam ne keroog ba mu daadee tàkk ba mu taxaw dafa mel ni dañ toog. vingt quatre heures boo xam ne courant dafa manqué bu yooyu amatee ñaanuñu yàlla mu am mais dañ koy sóoraale bu demeewul noonu tamit dina demee ci neneen ñu def lu mel ni poste secours nga xam ne bu bii doxulee wala mu soxla ñu entretien ko bële yor ko ndax lu mel ni dëkku Thiès ñu ne benn kii rek moo koy alim poste moo koy alimenté bu post bee amee problème lépp taxaw loolu jaaduwul dinañ ko def cees dañ ko def yeneen dëkk lu mel ni Touba lu mel ni Tivaouane Mbour et cetera yaatal gu ñuy yaatal aussi ñu ngi koy yaatal ci Sénégal ñu dul woon jot jot parce que yokk wàññi bi nga may laaj mooy ñi doon jot waaye am na Sénégal ñu bëri ñu jotul ñooñu tey mu ñu jotoon ci njët bu ñu ko daan jëndee ñun sax avant wàññi bi moo leen gën a donc ñooñu aussi xalaat leen te muy à peu près quarante pour cent des Sénégalais xalaat leen boole leen ci mbir li lu am solo la ci loolu la ñuy liggéey Senelec mu ngi ciy liggéey Azer mu ngi ciy liggéey ngir ñooñ ñëpp mun a am courant ci anam yu mu gën a rafetee wàññi gi téeméer bu ne nañ ci yi fukki dërëm du noonu téeméer gu ne laa wax de fukki dërëm waaw donc euh, dina am ci mois de premier bimestre bi lekk ak waa ministère bi commission beek ak ñooñu ñu ngi ciy liggéey ni mu gën a gaawee mu mun a nekk waaye damay wax ne que léeg-léeg nga dégg ñu naan doy na dayul dina am du am nañu muñ tuuti rek incha allah ñaari weer soretul loo xam ne ñu ngi ko doon courant bi depuis plus de vingt ans ñu ngi liggéey te amuñu ko ci anam nuñ ko soxlaa bay xalaata a buñ tolloo ba ni benn weer ñaari weer war dina war a mun a wàññeeku loolu war nañu mun a muñ te bàyyi commentaire yi nga xam ne aju ci parce que lu ci kanam rawul bët te incha allah dina ñëw parce que bu ngeen fàttali ko 98 dañ ko privatiser yoon jox ko ay tubaab yu jógee Canada ñu ne ñooñu ñoo mun a régler problème bi ñu def fi ñetti at régler wuñu problème bi ñu daal di leen jëlee fii indiwaat delloo ko ci. loxo ministère ak euh, Sénélec ak état plutôt ñu dawal 2011 fukki at 2011 gis ngeen Sénégal mu yëngu-yëngu bu métti ndax problème mu électricité bi ba Dakar toog ay ñetti fan yoo xam ne fu nekk problème yi daal ay émat ak lu ne tey bu ñu toogee 2012 2016 2016 gii rek ñu def fii lu tolloog ci centrale 2016 gi rek tey Taïba Ndiaye ak contour global ak euh, solaire yi. ñu def fi loo xam ne ëpp na deux cent cinquante mégawatts lu ëpp xaaj xaaj li ñu fi fekkoon en 2012 ci wàllum capacité donc loolu dañ ci war a sant président la république gërëm ko ci reconnaître que gouvernement def na effort Sénélec def na effort ñu war a mën a gëm nag ku def loolu que bu la waxee ni mun na mun naa wàññi woolu boppam ba mun a wàññi que dina ñëw. visite technique ou politique ou les deux bon gis nga ni d' abord. Eh, vraiment vous une question vous m'offrez l'occasion de. Sidi félicité naroon naa ko fàtte te yaa ci dugal politique le maire Talla Sylla parce que waxuma ko ci maa ngi lay tontu yaa bëggul sama tontu bi xëy na <laughs> euh, parce que ñu tey dañ fi ñëw ak casquette Sénélec casquette ministère ñëw ñu fi ak casquette avec la tête du cheval comme yaa ngi may may ma def publicité maire bi di ko gërëm di ko sant mu dalal ñu yàggoon tawat problème mu courant bi ñu ciy waxtaan maak moom. ba nga xam ne jàppoon nañ lu yàgg dinañu ànd visiter poste yi ànduma ak militant ànduma ak directeur général Senelec néew fi en tant que militant maire bi tamit néew fi en tant que militant wu parti wala mouvement dañ fi nekk en tant que sénégalais mu am ci taxawaay bu rafet moom ak yeneen maire commune yi mais particulièrement moom mi nga xam ne depuis boobu léegi ñu ngi ànd étape bu ne fu ne mu wax fa lii mu xalaat ci mbir mi donc bu bu ko defee dañ koy gërëm di wane ni que buñ fi doon ñëwee ci yeneen anam yow xam nga ni ma fa daan ñëwee beneen casquette laa ñuy yor mooy marron beige bi ak borom bopp euh, fas bi boobu laa fi doon ñëwee. <laughs>